maa ngi nuyu Sénégal yépp di nuyu monde entier bi yépp euh, di nuyu aussi waa Thiès di nuyu sama naataangoo yi ma toogal fii ñu bokk fal askan bi ak ñi nga xam ne ñu ngi nekk mairie Thiès ak euh, militant yi fi toog nar ñu déglu ci point de presse bi ñu bëgg a def di nuyu journaliste yépp ñi fi nekk ñépp di beral nuyoo nag suñu maire de la ville de Thiès monsieur Talla Sylla di ko sargal ci li mu nekk aussi président mouvement Fal Askan bi lii nag su ngeen ñu def ko tey je pense que jot pour ñuy feeñal li nga xam ni dañu ko dund mu yàgg lool lool lool lool dafa jot jot na aussi ñu wax nit ñi qui est vraiment jot na aussi ñuy waxtaanee président Talla Sylla ci ay jaar-jaaram parce que la plupart des Thiessois dafa mel ni dañu xaw fàtte président Talla Sylla jaar ci Sénégal je pense que su ma buggee dugg ci jaar-jaaru président Talla Sylla dinañ ñi dina am ñoo xam ne sax dinañ ñi ndax woon ak kii li muy wax nii fan la ko jëlee mais dama koy jëlee ci soxna suñuy wax soxna Fat Samb nekkoon sama maam xawma sama yaay mu yar ma ba ma xam président Talla Sylla à l'âge de 10 ans laa ko xam wax naa ko keroog je pense que bi ma amee 10 ans la ñu xamante suñu biir kër comme fi ma xamee sa Seck xamee fa feu Boubacar Sall ma gis ni jamono jii dafa mel ni ñi wax ci président Talla Sylla dañoo xamul dara ci jaar-jaaram wala dañoo fàtte ba nit la ñu bëgg nag tey dugg nag si moom mooy kan parce que c'est un homme de valeur boo xam ni dañ jul toogati di xaar sax ay mois ay kii di def lu mel nii ci la ñuy dëkk parce que nit ñi dañ ko war a xam ñun suñu ko waxee day nekk lu dëggu parce que Sénégal nag xeyna na bi ñu juddoo yàggul waaye ñu ngi fi dox dëgg di wax dëgg te moom aussi loolu la yare yaree te loolu la sant ndax man dama fekkee muy ñëw ci sama maam far Samb ci jàmm gën je pense que tey lii ku ko seetaan ku nekk dina ne xale bi li muy wax dëgg la et je suis témoin oculaire sur ce que je dis aujourd'hui te li may wax ku ko weddi fu mu ma mën a ko ko fa fekk ma leeral ko parce que nag dafa jot je me rappelle très bien de 88 bi Talla Sylla di xàll Thiès boobu dama xamul tey jeune yii di wax ñu ci bari boobu juddooguñu kon ñooñu mënuñoo wax kan mooy Talla Sylla waaye je pense que ni nag am na ci seen leader boo xam ni moom xam na ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax parce que wax naa leen barki dem ni leen ku dul Boubacar Sall fii ci Thiès laa wax ba ci Idrissa Seck bu taala xàllulu xàllul woon Thiès ba mu mokk rumbax rumbax rumbax rumbax jamono bi mu fiy ñëw metti woon na parce que 88 nag kenn fàttewu ko taala di xuus ci lacrymogène di xeex di ñafé pour dëkkam Thiès d'abord ak Sénégal gépp nag entre 88 93 li mu daj benn leader politique dootu ko daj man su ma déggee yenn propos yi du ma si bëgg a jaaraat sax parce que boo ci jaaraatee sax ñoom da nga leen di may buzz parce que amul sens mënu ñoo fexe ba li ñuy wax nit ñi dugal ko seen bopp yi mënut a nekk parce que mënoo nekk ku mel ni Talla Sylla ngeen dëkk si benn dëkk mu juddoo Thiès yaroo Thiès màggee Thiès ay waajuram nekk Thiès ngeen bëgg ko jël def ko benn comme benn genre nit boo xam ne rek dafa jóge à l'étranger mais il faut il faut que vous arrêtez parce que ñun li ñu xam dañ koy wax de preuve palpable 88 mom rek mo fi nekkon ak Boubacar Sall ñu tuddé Boubacar Sall le lion du Kayor président Talla le jeune yépp déggal ko à Thiès muy xex ndax Thiès tay statut bi nga xamanteni ni nii Ablaye Wade amoon fi ba mën fe tek Idrissa Seck mu dëgër ñi ko xeex ba Ablaye Wad mën ko am Talla la du kenn te li may wax Maïssa Dieng war na koo seede Pape Moussa Diop xam na li may wax parce que bobu ñu ngi ci mu mu ngi créer ben mouvement bu ñuy wax jeunesse pour l'alternance JPA Ablaye Wad am ay calo bleu moom mu def ay calo jaune je pense que Youssou Diop li may wax sa koñ la won arme jaune buñ koy tuddu ci Thiès taalasi la je pense que moom moo ko fi créer won loolu moom archive la du dañ te li ñuy wax lépp dëgg la boobu ane woon Idrissa Seck xam nga tooguñu fii pour ŋàññi kenn parce que nit ñi dañu dépassé ŋàññante dañu dépassé xuloo ak xeex li tax nag boobu ba léegi ngeen di wax ñu bàyyi leen si li ngeen di wax c'est parce que président Talla la moo ñu tënk rek lu waay wax rek mu ni garaawul bàyyil mu jàll ñu bàyyi mais nag dafa dem nag ba li ngeen di wax dafa ëpp nag te nag lu ëpp nag tuuru nag lu ëpp tuuru parce que ñun mënuñu yar ba ñu màgg toll nii à Thiès nekk ay responsable à Thiès yor suñu njaboot à Thiès ngeen di jékki-jékki di génn ay propos yoo xam ne amul sens duma ci jaar ndax da ngeen a bëgg ma tudd tur bi ngeen am buzz li ngeen di wax c'est vrai ndaxte su fekkoonte ni fii ñaata homme politique ñoo fi nekk nekkoon ci parti politique génn ci fii kan moo fi dem pouvoir ak parti ba nga yoroon mais Ablaye Wade mi dem pouvoir ak partem sax danaan dem ci gouvernement PS nekk yor fa ay ministre am du dëgg su su su su jubboowul ak Abdou Diouf wala déggoowun ci ay kàddu mu génn ci gouvernement bi su toogaatee ba jubboog Abdou Diouf duggaat ci gouvernement bi waaw lo loolu moom nu ngeen ko tuddee moom boobu moom xaana ngeen koy fàtte te pourtant bi muy négocier Ablaye Abdou Diouf di dugg ci gouvernement am ak di génn Idrissa Seck ca la bokkoon boobu lu tax waxu leen ko dara boobu lan la woon moom boobu du du wor wala boobu moom affaire amitié la mais ñun dañoo doful jinne jàppuñu fii la ñu toog nag suñu président moo ñu tënkoon parce que taalasi la nag ñëpp dañoo jàpp ni euh, dafa tàng wala dafa kii non non su fekkoon lu ñu wax mu tontu kon dëkk bi lakk na te nag amul dara lu mu fàtte te ku yàlla may xam-xam la. ku yàlla mayit muy muñkat dëggantaan waaw li wax la parce que nag ni 93 95 ba jàpp yi ñi fi wax ñi yépp matériel musique bi Idrissa Seck may jeunesse je pense que man maa ko daan Dramé ancien député Aiglon du ko indi JPA ñu ci animé loola booba Talla fa ñun bu ñuy jël matériel bu Idrissa Seck may jeunesse su Thiès mais taala si le créé JPA jeunesse bi ñan kan ñan la woon mais ñun ñii la woon kon taala bu mu talee jàppale Idrissa Seck da du tey c' est à dire yéen ñii di génn ci réseaux sociaux di wax da ngeen a fekkiwul démb nit nag su fekkiwul démb day teey te dégg naa nag ñu ni xale su bañee dégg yenn yi ah day am tuuti yar et que je pense que deux ans nak wala un an et quelques yene gi ngi rek di wax diko ko diko saga ngene ci media yi rek di wax rek di wax rek di wax rek ñun bu ñu muni rafetel leen li ngeen di wax li ngeen di wax bu mu ki nak senegal lañu nek man rew mi la bëgg rew mi moma ñor taala la tey damay dem tontu ji mun la tontu lawuma la duggal ci koñ yi nga seetal ma néegu doole yi ñu xool lu ñu leen mën a dimbalee duggal ma ci koñ yi ngeen xoolal làmp yi te pourtant nag mairie ville dong la gere nag mais fu ne lay dugg ak ay nitam loolu lañu ñu sant loolu la xam ci moom ba pare ma dégg ñu bari di wax gis nga terrain bii bu mokkee ba Idrissa Seck tey mën fee ñëw ba représenté fi PDS ba luy am door a am Talla Sylla la bii mooy deuxième fois ma koy wax parce que point boobu daf ma ñor moom la parce que bokkuñ na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a génne seen gémmiñ wax ko président wadd ni ko Idrissa Seck dafa war a ñëw milicité à Thiès toog Thiès ba mu ko ko njëkkee wax d'accordu ci kon yaakaar naa ne bu dikkee Thiès taala moo ko indi Thiès ak ñun ñi suñuy maam ak suñuy kilifa def délégation dem kër Ablaye Wade boobu maa ngi def sem 2 keroog laa njëkk a teg sama tànk kër Ablaye Wade maanaam ba dem di wax Ablaye Wade ni ko dañoo bëgg Idrissa Seck ñëw Thiès te wax jooju taala si la génnee ko ci bo yaakaar naa ko bañ nit doon ko ñëwal Thiès de ñëwal Thiès dëggal sa bopp yaakaar naa ku bañ nit wala nga am benn rancune ci moom doo ko def parce que taala ba muy xale ba léegi xolom bi dara nekk si lu dul lu set loolu moo ko def délégation bi jëli Idrissa Seck à Dakar j'en faisais partie boobu maa ngi def sem deux point E kër Ablaye Wade ñu dem toog mairie wax délégation boobu Maysa Dieng bokkoon na si ak ñu bare bari ñoom pas Magge Diouf ak jàmm gën bokkoon nañ si li may wax ay tour laay tudd. ba ñu demee wax ko président Wade daf ne li ngeen wax rafet na xel mi rafet na kon tey suñu dikkee naan président Talla la euh, euh, Idi da ko yaatal mu dem bàyyi ko déedéet mais moom moo njëkk a yaatal Idi moom mi dem jëli ji ko à Dakar moo njëkk a yaatal Idrissa Seck nañu rafetal mbir mi. mbir mi dama bëgg ñu rafetal ko waaw parce que fii mënuñu fee wax ba deru président Talla la yàqu te su fekkoon lu ko waay wax mu tontu la kon dëkk bi lakk na ñun lii ñu xam moo ñu ko gën a xam fuuf parce que suñu ko xamee ba di ko nettali moom moo ñu magoon ñoo jur bañ koy bañ koy xam di ko fekkee lang gu mu mus a Idrissa Seck la ko tuddee booba ñii toog fii ah, ñii bokk réew mi xamuñu luy politique boobu ñii bokk réew mi tey ŋànk ko di xas président Talla la xamuñu woon sax ni Idrissa Seck dina ñëw à Thiès dama bëgg ngeen tey si li ngeen di wax parce que nag de preuve palpable xamu leen Idrissa Seck ak Talla la fi ñu jóge dañoo yàgg ñoom ñaar Talla la nag dafa dul nit koo xam ni fay tok pour ñukay manipuler muy top ay nit du ko nangu tay du ko nangu suba kep ko xam and ànd naag ci vision la ak yow mais su ngeen demee ba nga bu su ba nga xamantene ne ni yow vision bi mu andon ak yow yoon wi ngeen tëraloon ba and ci nekkatoo si yoon bop mais dafa am droit génn fofu dem ci fi nga xam ñoom la la wolu Idrissa sek il a fait Idrissa sek il était dans le PDS lan moko fa jëlé Talla Sylla il était dans le PDS lan moko fa jëlee pourtant nak jugé ni bokul de amna ñu fa jógee jugéen bu ñaaw nag te Talla Sylla jugéen bu rafet la fa jugee parce que boobu bokatul won ak maître Wade vision mu jóge fa ñaata homme politique ño fi nek fi ci dëkk bi dugg ci parti génn ci parti parce que so togué tay Idrissa Seck nga dem PDS ba mu neex la nga joge fa bobu yow noko tudde ñi taxaw ci réseaux sociaux di xastala zil di ko saaga loolu yeen nan ngeen ko jangate ak nu ngeen ko tudde ta joge ñi bokul de joge bu ñaaw la joge PDS jotek Ablaye wadu lu ñaawa ñaawa ñaawa ñaawa ñaawa nak ta taala si bi mi joge PDS loolu lepp amu fa kon tay su andek su andek euh Idrissa Seck mais am na droit génn ci Idrissa Seck heure bu ko neex c' est pas parce que dafay ànd ak Idrissa Seck da ciy continuer di continuer di continuer loolu yow yaay ak doom sax dañoo mel noonu du yenn saa yi nga yor sa doom ci biir kër ba mu war a sëyitu da koy bàyyi mu sëy est dafay toog du fa toog nga yor sa doom bu góor ci biir kër ba mu war a takk jabar du da koy bàyyi mu dem takk jabar waa léegi yow Talla la su fekkente ni doxalin bi Idrissa Seck di doxee à Thiès neexatu ko moo amul droit génn foofu wala moom bu fa génnee kon dafa nekk workat waxi wor ngeen war a bàyyi nag li xew Sénégal dafa bari fii lu ne am na fi lu ne am na fi te Talla la toogul rekk ñu ni ko kaay ñu jox la Thiès moom moo yàgg a joxe Thiès Idrissa Seck da koo delloo njukkal da koo delloo njukkal parce que ba taala naan ab Ablaye Wade Idi na ñëw dëggal boppam ñu jàppale ko du tey xam ni koo xam ni ba nga nee ni Idi na ñëw dëggal boppam mat na 28 ans Idi ñëw nga ànd ak moom fekk yow xeex nga Thiès 88 lacrymogène ya jeex na xeex ba jeex na xeer ya jeex na Pa Mor Fall fii lañ ko rey ci mars nañ te dëgg sama ñoom maam tëj nañ leen kaso 88 93 Ngiraat Njaay dugg na kaso Maysa Dieng dugg na kaso Talla Sylla dugg na kaso. Idrissa Seck bi mu amee Ablaye Wade problème la door dugg kaso ñun Thiès dafa fekk ñu bay ko ba mu mokk rumbax ba lépp leer ñu installé ko président Idrissa Seck li may wax nii su fekkee danga maa fàtte dangay laajte sëtu Fat Samba gënoon a tuuti te ndaw lool man mii la donc li may wax lu ma xam la bul fàtte aussi kurus yu gudd yàgg yooyu yëpp dama fee fekkoon de mu metti ma lool nag la nga sama ñom ma ak ma touché te pourtant bo fi la fekkoon taala si la dafa defar rek yor pusoom bi di ñaw rek di ñaw rek lima len leen moy dafa son dafa son mais taala si la na PDS amul problème wa PDS xasuñu ko ŋàññuñu ko waxuñu ko dara mais wa léegi lutax mu rekanak. rew mi ngeen ni yeen waru fa yeen yene kan nak ñu nag dañoo sonn moomu leen ñu tey moomu leen ñu suba bi muy dugg réew mi dañoo àndoon ak moom dugg ci réew mi waaw boobu dañoo yaakaar ni mën na noo def sëy sax day tas ngoro day tas mais lan moo tax diggante du tas ah yéen daal Talla la daal moom mooy seen nooy neex boo xam ne da ngeen koo bëggoon a teg ci mairie bi rek di manipuler jaaral nii mu jaar nii awal nii mu aw nii ba kañ pour lan mu dëkk Thiès juddoo Thiès yaroo Thiès xeexee Thiès màggee Thiès def fi lu fi kenn deful mokk fi ay grenade ah du ko fi kaso ah léegi nag ngeen ne na toog rek topp seen ginnaaw pour lan du ko def tey du ko def suba dama ni président Macky Sall gis nga Talla Sylla bu toogee. xam nga ni fëkk yóbbu ko de kii fi bàyyi milliards yi PS bàyyi fi millions yi ablaay waat xam nga ni yow alal tax ko dugg si yow dafa xam ni yoon wi mu aw jamono ji dangeen koo nuróole moo tax mu bëgg laa soutenir waaye Idrissa Seck moom ba ba ko ablaay waat joxul ay koppar est ce que mënoon naa defar Thiès

yow sa oto boo koy dawal foo koo romb ni ko kaay ma yeb la déposé la fa nga jëm ñu mën la caa rey mën la caa def lu ne yow lekkoo naanu yow boo jëndee laxasu dibi sax joxe ko ci yoon bi ba mu jeex kooku lan moo ko tiital ba muy wor lan démissionné assemblée nationale mu gënoon a bari xaalis foofu mairie bii waa kooku lan lay wor mais il faut que ñu arrêté aussi di diaboliser nit ki toog rek ni ko sosal naa yàq deram naa wax lu ma neex bu ko defee sénégalais yi nooy bopp ne waaw da ko war du voté ji a koy pare pour wax ak pare nag pour fu ngeen ñu tontu leen parce que nag xam nañ li ñuy tontu ñun nag dañ fee parce que ñun saaga moo bokkul ci culture Kastante bokkul ci culture soo gisee tey président Talla la moom nekkul fii di xase ay dàll kii nii de Macky Sall dafa sol dàllam di dugg si kër kilifa diine yi ñun on est des sénégalais dafa am loo xam ne nag dañ koo gëm mu neex ñu nag li muy def nag kër diine bu mu dugg def fa lu baax wax fa lu baax def fa lu rafet mais bi muy dem ay dàll la sol loolu la président Talla la ni dàllu Macky Sall sax moo gën bu sa Seck

na droit ànd ak ku ko neex am na droit tàqaliku ak ku ko neex yéen ñi jóge woon PDS seen leader dafa pedes PDS pourtant dafa jëndoon kart ba mu fay jóge c'est pas une raison que Talla la dafa jëndoon foofu kart c'est parce que dafa war a toog fii ngeen koy noot muy noppi du ko nangu tey du ko nangu su moom bu ko nangoon sax ñun duñ ko nangu gis sax moom bu génn woon réew mi ak seen condition yooyu ñun ñii ñooy njëkk a génn foofu bàyyi ko fa nag point de presse bi li ko waral mooy dañu yàgg ak Talla la xam ko xam ci moom ay qualité yoo xamante ne nii gisuma fi benn leader politique ci Sénégal bu ko am gis ci moom dignité ak personnalité boo xam ne benn leader politique amu ko gis ci moom mu nekk biir Thiès gii def fi lu fi benn leader politique deful il est le seul boo xamante ne nii kaso bee ak këram la yemale mu jaar fu métti à Thiès. dimbali Cees waay yi jàppale ab Ablaye Wade ba mu jël Cees téye ko ci loxoom Ablaye Wade moo jox Idrissa sekk Cees de mais c'est pas parce que Idrissa Seck moo jël Cees Ablaye Wade moo ko ko jox. Ablaye Wade moo jox Idrissa Seck Cees. Alla Sylla moo xeex Cees jox teg ko si loxo Ablaye Wade te ba mu koy Cees ba mu koy xeex ay magi PDS Cees la ko àndaloon di ko xeex il n'était pas seul nag. ndax bu ñu ñëwee Talla Sylla moo ko doon xeex léegi ñu génn ñu du dëgg ba mag ñi di xeex bu Boubacar Sall di xeex ñoom Mère sàmb di xeex ñoom Mansour sàmb di xeex booba Talla la dafa nekkoon ci seen biir di xeex comme ñoom kon dama ne taala moo téye woon Thiès teg ko ci loxo Idrissa Seck loolu laa wax de preuve palpable parce que dama ko fekki moo tax ma wax ko 88 93 ku ne xam li fi Talla la def bobu ani won yenn leader yi lolou bokon na li tax ñu def point de presse bi pour wax Talla le dembam te dembam bokku na si li ñu leen wax tay ay minutes doyuñu pour ñu wax fi mu jaar mais li mënul wona a pour point yu bari ñu leeral ko pour sénégalais yi xam baat boobu ñoom ñuy tuddee wor dañ ko xamul moom daf ko xamul expliqué naa leen léegi ci li ñu wax li tax mu tudd dàllu Macky sàll bi nga xam ne tey moo leen tax di mer bu yeboor nañu mer parce que il est nag parce que dañoo toog presque un an et quelque ñu jàpp di saaga di ñu saaga di ñu xas di ternir image de di wax lu leen neex ñun duñ fi nekk pour di révéler ay saaga ak di xasteeg di dañu nekk pour xamal leen ni leen à juste raison ku ko neex lay àndal parti bu mu sentirul boppam rek daf fay génn bi mu sentiree ni Ceesuwaay yi ñoo pour mu dem ci Macky daf ko def defu pour intérêt personnel daf ko def pour que Thiessois yi Thiès changé daf ko def pour Macky sàll jàppale Thiès defar Thiès comme Idrissa Seck na ko Ablaye Wade joxoon mu defar Thiès su fekkoonte ni moom kese la moom mënul defar Thiès.